jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen kontaane waat beneen yoon ci seen àndina ak le buzz di web la chaîne des leaders Senbuzz TV mbégte kontaante la ñuy am saa su ne vraiment ci di am ak ko borom niveau bi ki nga xamee ni aussi mooy l' ambassadeur de la jeunesse muy phénomène boo xam ni wax dëgg yàlla sénégalais yi bëgg nañ ko ndax ambiance bi nga xamee ni mi ngi koy def donte ni lutteur la muy bu Siteu moom la Senbuzz di am ak jotaay bu mon très cher sama xarit maa ngi lay nuyu vraiment di am mbégte bu baax a baax si jotaay état bi ak disponibilité bi mon frère. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si bi di sant samay ñaari waajur di sant waa géejawaay bu baax. Mhm. di sant autorités yi di sant waa Tivaouane Peulh. di sant tamit suma papa Aziz Ndiaye. Aziz Ndiaye maa ngi koy sant bu baax di nuyu Baye Ndiaye alburaax waaw di leen nuyu bu baax a baax di nuyu tamit fi nga fekk tey Parigo. na tey niveau bi dafa aju de ci restaurant laa la fekk. waaw waaw yaa ma fekk Parigo Parigo fii la kilifa yëpp di ñëw di añee xam nga. waaw ñu nekk ñoo xamante ne maanaam li ñuy jaay sell na macha allah quoi. Mhm. waaw gis nga sànq fi ba nga ñëw fii yaa nga fekk mooy añ. ngay añ bien sûr waaw kon lii moo lay woon na yenn niveau yi. c'est clair waaw du nuyu waa Paris Parigo bu a baax a baax. le Parigo. restaurant de Parigo yeah restaurant de Parigo. alors niveau bu tey fii lañ la fekk ngay añ kon daal niveau bi léegi mu ngi ci niveau booy añ wala booy reer la Parigo nga choisir bu. waaw la Parigo te parce que la Parigo nekk nañ ñoo xamante ni xam nga. Mhm. waaw soxna yi fi nekk baax nañ xam nga. boo ñëwee maanaam li ñu lay accueillir balaa ñu laa jox ngay lekk. Mhm. loolu rek beneen affaire la quoi ba pare seen lekk sell baax ma waaw di wax ne daal képp ku bëgg lu baax nga dëkk foire fii. Mhm. parigo ngi nii ginnaaw alburaax waaw ay lekk yu sell lañuy ñuy di ñuy jaay añ reer lépp. Mhm. waaw maa loolu. très bien alors merci beaucoup à toute l' équipe de restaurant Parigo ñoom ñoo ñu daal aussi mais pour commencer. façon style bi nga def nii kagul bi bu lu la ci xiir ban moment nga toll ba war a sol sa kagul ni présentement bu. waaw moment bu ñu toll rek mu nekk moment boo xam ne nii. Mhm. moment slogan. waaw dañoo toll moment slogan te parce que yow gis nga Bou Siteu. Mhm. lu ma indiwul ci slogan ci làmb baaxul. nekk koo xam te nekk mbaru jeunesse bi. Mhm. maanaam lépp lu ma def jeunesse bi daw uti ko. waaw loolu moo lay woon ni kon Bou yamul ci làmb kese. Hmm. waaw maa ngi ci côté bu nekk côté slogan ak lépp. waaw ku ci mel ni maam Saliou. Hmm. maam Saliou mu ngi ba amoo kat moom mooy jaay affaire yi. ak lépp tagul quoi. waaw moo ne bu émission bi nga war a def tey tey da nga war a génn Sénégalais yi fu doy waar. Hmm. am na yeneen yi fu nekk yeneen istil mais istil bi laa bëgg indil diaspora bi. indil ko sénégalais yi. mais lu tax nga sol ko lan nga bëgg a si kagul bi nga sol tey ba nga xamee ni bu say bët rek moo moo génn lan nga bëgg a jàllale ban message nga bëgg a jàllale. waaw message bi ñu war a jàllale rek mu nekk message su dëgg. waaw message su taxawu jeunesse Sénégal. waaw taxawu jeunesse Sénégal. Mhm. wax ak gaa yi wax ak gaa yi pour maanaam maanaam nañuy taxawu jeunesse bi. parce que métti na trop daal. Mm, mm. waaw gis nga tey ci yow yow booy dem Tiwaawan Pël guddi gi maanaam Cambérène ba Tiwaawoon pël nga liggéey si Sénégal dëgg la président liggéey na de liggéey na bu baax a baax a baax mais waroo ñoo xottil tëli bu jëm Tiwaawoon pël ba pare nga jaay Tiwaawoon pël jaay fépp nga xotti tëli Tiwaawoon pël ba pare defoo fa ay làmp defoo fa ay làmp chaque jours sog yi fay am guddi gi sog yi fay am kenn mënu koo compter. Mm. tëli Tiwaawoon pël bi kon dafa jot nag président nga jóg man maa fi nekkal jeunesse bi. dëgg la maa fi nekkal jeunesse bi lépp lu metti jeunesse bi moom maay taxaw xeex ko bañ def ko te te bëgg naa gars yi samp fa ay làmp mhm. mais Cambérène ba teewaawoon pël amul làmp tëli géej gi nga defaroo ñu fa ay tëli ñuy laq ay carburant di sol ay essence di fa jaar chaque jour dëgg la yoon bi gaaw na. Mhm. mais yéen essance yi ñuy jënd di ko di ko kii mais yow jeunesse bi ñu ngi deewaa di sol essence oto yi di sol essance chaque jour di daw si télé bi di di di maanaam di fay carburant si réew mi ba pare door ñu fa taw taxawal ay ay ay ay lamp yu leer looloo ma metti looloo tax sax tey ma gën a sol kagul bi pour jàkkaarloog euh, euh, président de la république mm. mu mu defar foofu di ci interpeller suñu papa la Diop mm-hmm. maanaam yoonu Tivaouane Peulh bi métti na métti boo xam te ne guddi gi mais yow foo xam te ne amul làmp yow àll àll nga ñëw xottil ñu fa télé mm. mais boo fa defee tële sampal ñu fa ay lamp yoo xam te nii maanaam yow oto day paan oto day paan de seera oto bu paanee day leen day seera rek taxaw ne mhm. da ngay gis oto bu daw ba dem mbëkk oto du ko gis moto bu daw ba ba ba dugg oto bu paan foofu noonu te mais loolu fan yii yëpp ay sog yu métti ñooy am yoonu tëli Tivaouane Peulh bi mhm. kon dafa jot président de la république ak képp ku bokk si nguuru Sénégal ngeen jóg ñu defar foofu d'accord waaw defar leen foofu ñu samp fa ay làmp ñu ndax ndax ndax jeunesse Tivaouane Peulh bi seen xel dal très bien xelu kenn dalatul ndax ndax ndax tëli géej gu lëndam hmm. d' accord mais mais bu est ce que xam nga ni kagul bi vraiment dafa xaw a niru maanaam tey ku lay gis nii danaan bu est ce que du dafa am lu muy waaj moo tax mu sol li mystique la daal pour yow kagul bi aussi est ce que vraiment amul mystique bi ci nekk non ne pas cadre mystique rek parce que yow xoola si maanaam si maanaam si si si si si affaire bi si si métier bi ma nekk. waaw métier métier métier métier showbiz la. ba pare dafa avant les affaire affaire affaire xam ma rek. waaw affaire comme sànq lu ma la affaire sulagan ok loolu génne style. am lu ñuy wane daal. Mhm. indi cosaan. Mhm. indi loo xam te nii xam nga mooy loolu daal. ba mhm. maanaam ba pare milieu bu nekk. maanaam dañoo nekk si millier bu doy waar milieu làmb mu am xeexante am affaire dund affaire affaire ceddoo. xam nga rek. moo tax yenn saa il faut mu koy jàkkaarloog gars di leen xool ngeen may xool. parce que xam nga rek. il ngay wane sa bopp si ci beneen façon. foog ngay wane sa bopp si yeneen façon. Mhm. fii ñu fiy takk kagul yëpp dañuy xànj rek borom kagul baa ngi nii ñëwati naa. Mhm. très bien alors mais Siteu moom la ñu daan gis vraiment bu Siteu muy muy muy sàkk kàngul bi tey est-ce que du moom moom dafa am lu mu la ci influencé maanaam dafa la abal kàngu wala dafa am mystique boo xam ne dafa nekk ci kàngu Siteu wax la ko sa doom nday non Siteu non non Siteu Siteu Siteu Siteu que nekkul deux ans ngi ni déggante wuñ ah bon waaw Siteu gën déggante sax maanaam man damaa ñëw si làmb indi sama yëfu bopp man royuma kenn de maanaam dama ñëw indi sama slogan boobu déggoo man la bii nii ngeen gis rek mhm. mais am na yeneen yu a ñëwaat yow Bou Siteu yow man ñaata at ma nekk ko ci làmb gëm sama bopp topp ma si benn ginnaaw mbër man benn mbër tegu ma loxo maa faytal sam bopp mu métti torop ma koy dund gisuma kenn. Mhm. gis nga bërki Dembo Ndiaye suma sama jabar. mais cadeau laa ko indi la 25 décembre ma jëndoo ko cadeau cadeau lal bu 2 millions. très bien waaw xam nga ne kon buus kon kon gëm sa bopp rek a ak gëm sa bopp gëwuma kuy topp si ginnaaw mbër man dama gëm sama bopp man gaynde laa. mais dégg naa léegi da ngay nëbbatu moo tax ngay sol kagul bi ndax booy doxantu léegi ay millions ngay yor sa poche bu Siteu. waaw loolu moo tax nee eh, xam nga yaa ngi may wili pande naan ay millions la. yaa ngi may siiwal. Mm-hmm. waaw yaa ngi may siiwal naan bu Siteu fa ne ay millions dëgg la ay mais maa ngi maa ngi maa ngi douze coups doy waar. douze coups laa yor parce que réew mi réew mi moo changé. Hmm. ko kojaatakat yi dafa bëri. Hmm. mais yow xaritu jeunesse bi nga bu yow ñëpp xam nañ ne Bou Siteu guddi yi si ay loxo yu wóor laa nekk. Hmm. waaw xaritu jeunesse bi laa. xam nga rek te dëkk bi jeunesse bi. Bou Siteu Bou Siteu. maanaam Bou Siteu léegi célébrité laa maanaam boo dégg ñu la célébrité. maanaam comme benn DG Lonase bu bu si réew mi rek. xam nga DG chaque jour mu ngi wër senegal déggal mu ngi wër mu ngi wër banlieue yi te te te te maanaam doo ko mës teg bët kon man tey bu bu Siteu Lat Diop joxol joxol Lat Diop teemax muy wër si dëkk bi hmm. mais kon bu Siteu tey célébrité la man mënatuma yëg si engin hmm. mënatuma yëg si moto mais lu mu yàgg yàgg yàgg oto dinaa jëndal sama bopp oto. mais bu maa ngi gis Pawlish vraiment tamit mu lay gondi man vraiment dama rus quoi mu lay gondi ci ay affaire oto amagoo oto ndax niveau bi nga toll tamit bu tey ci tey waroon nga toog ba léegi amagoo oto bu borom bi. waaw xam rek mu nekk loo xamante ne te maa ngi si yoon bi. waaw yi lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg dinaa gaara ay sama buntu kër dinaa fa gaara ay 60 oto. Mhm. lu mu yàgg gis nga nu bëggee oto nii dinaa gaara sama buntu kër ay oto yu bëri. te lépp nag maa koy jëndal sama alalu bopp ak sama moyenu bopp te parce que am na ay kilifa yoo xam te nii mhm. jaruñoo sax xam ñuy mhm. jël ay oto di ko may ñoo xam te ne tekkiwuñ dara ci réew mi waxluñ jeunesse bi bëgguñu sax jeunesse bi dañuy sàkkatoo jeunesse bi te ñoo ñëpp a ngeeg ay oto abu mun naa si limal ay influenceurs yoo xam ay kanaara yu mag lañu mhm. ay influenceurs ay défaillant lañ te ku ma si tenc moo commencé tànc di nga xam ne lépp di nga xam ne waroon la ni oto yelloo leen oto man maa yelloo oto moo leen tàncee di ngeen xam ne lépp dëgg la te dañuy sàqatoo jeunesse bi maanaam nekk ci réew mi di di mbubboo jeunesse bi te yow tapet nga gëmoo jeunesse bi xam nga mm-hmm. am na yenoo xam kenn mënul wax lépp quoi mais lu mu yàgg Pawlish yooyu mu may ñoddil yëpp yàggatul dara ay oto la may ñoddil mm-hmm. di ma jéem a sous-estimer mm-hmm. léegi léegi léegi léegi dinaa wàccee oto bu soxor te sama moyenu bopp te yaakaaruma ko si kenn mais nag am na ñoo xam am nañ yéene pour may Bou Siteu oto dafa jot ku ma ko mayul si période bii dugguma mais mais da nga génn napp Sénégalais yi naan fi mu toll nii ci loxo yi wóor laa nekk mais bu loxo yi wóor yi nga nekk ak léegi léegi mu jege at ba léegi mënoo am oto tamit est que loxo yi tamit desul la set nga foog non dafa dese te fan yi rek maa ngi vérifier di xool yaa ngi seetaat loxo yi waaw te parce que ñëpp xam nañ ni bu Siteu guddi yi ci ay loxo yu wóor laa nekk kon dëgg la si ay loxo yu wóor laa nekk mais chaque jour journaliste posé ma loolu ne ma yow yow bu Siteu dëkk bi ñëpp xam nañ si ay loxo yu wóor nga nekk ba pare yor moto boo xam foo romb paan moo tax booy jeunesse bi am na jeunesse bi am na booy yu koo moo tax booy nee ko ku mu ci bu ma benn booy vidéo ma dafa jamartara moo opposé waaw. Mhm. damay yar mu da paan mais fii paan ñëw ñëppay paan. mais un un pourquoi ak ni ma mel ak bi. Mhm. mais jeunesse bi na booy yoo xam ne ay dafa am na booy koo ma nekkal fi jeunesse bi dëkk bi ñëpp xam ne maa fi nekkal jeunesse bi. Mhm. mais sama moto bu paanee nga romb Bou Siteu mais bul ma sinap. bul sinam naan ay buusita pan waroo pan sa yoon nekkul ci sama paan ku ma ci ku ma ci kii naa toj sa téléphone. Hmm. Hmm. waaw d'accord très bien mais bu Siteu tey tey nan la lay def niveau bi nga toll tey ah. Hmm. amoo oto da dox sax léeg-léeg nga paan xale di la si na bëgg yooyu loolu nan nga koy dundee. vraiment loolu mu koy dundee muy mu metti dafay metti si xol ah. dafay metti si xol maanaam su ma paanee maanaam birk dem fan laa dem pet feenee Sandaga. Sandaga laa dem wallaahi ñëw Sandaga. sama bëti bi ne jeex naka te ma paan daal oh. mais rus naa te gis nga Sandaga nu muy rëbee mm-hmm, mm-hmm. rus naa faa nekk te gis nga dëkk bi fu ma maanaam guddi damay takk mag sa guddi kam fulewu sax ay nit di ma feeñoo mm-hmm. ma ma paan mais ma paan damaa kal machine bi bàyyi ko fa dam sama yoon dem jaa électronique jege jege na ma foofu ginnaaw Sandaga côté Njuga Kebe toog si palaasam sànni moto bi fële laa ko sànnee mujj bi sama benn booy laa woo Ahmed. Mhm. booy woo xam ne heure bu ma paanee moom laay woo mu taal moto ñëw. ma woo Ahmed sama fils. Mhm. xam mhm. nekk booy jantal boo xam ne su ma waay la maa ngi moom démb la quoi moom laa woo mu mu indi fa moto bu mag ñëw teg ma tànk. d'accord mais fu ma tegee tànk fu ma rob ñu naan buure dañ koo teg tànk xool yooyu. ah teg tànk ba pare. waaye ba dinaa loxo yu ma nekk dinaa xoolaat loxo yu ma nekk te parce que mënu ma nekk si ay loxo yu wóor ba dëkk bi ñëpp di ko tiktok. loxo yu wóor yi maa fi génnee loxo yu wóor ay loxo yu salta ay loxo yu safaas kon kon loxoy safaas yi am na ñu ma ñu ma ko langal ba léegi te di ngeen génn si si si man. te parce que nekkoo leen ay loxo yu set. loxo yu safaas yi ba léegi bàyyeeguñ ñu ngi lay suivre ak Serigne Bamba Mbacké mais boobu ba léegi hmm. mais comme lu ma la rek lu mu yàgg yàgg yàgg. dinaa hmm. jëndal sama bopp oto te yàggatul. d'accord mais mais bu mais bu tey. yàlla def nga am tendance TikTok xale yu jigéen ñi rawatina sa fans yi kenn ku nekk ay mm-hmm. slogan wu Bou Siteu la ñuy faral di TikTok ndax sa fans yooyu noonu rawatina jigéen ñi ñoomit it mm-hmm. jotul vraiment tamit ñu indi benn touche xëy na moo xam dañuy créer benn association pour euh, fans bu Siteu yeeg yu demee noonu tamit loolu tamit gisoo nii lu jaadu la présentement. waa dëgg la maanaam ay cagnotte. mooy cagnotte waaw waaw cagnotte par exemple. maanaam dañ maa yàgg a naxee ay cagnotte. dañ la yàgg a ci cagnotte. dañ ma yàgg a nax si cagnotte te mm. gis cagnotte. kon affaire kañat yi di bu ma kenn waxati kañat. Mhm. waaw ay kañat yoo xam ne ay waxu kase. Mhm. yee. d'accord très bien mais mais mais bu yàlla dafa def nga bari ay soppe Sénégal yëpp bëgg la rawatina Sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew rawatina France Espagne ak Italie. Mhm. bu sa fan siy nekk foofu dañ la xaar xaar annoncé nañu sa ñëw plusieurs fois gisuñ la. Euh, lan mooy problème bi ba mënu yegg ba léegi gisante ak sa fan siy nekk extérieur. waaw sama fan yàgg nañ maa xaar. Mhm. yàgg nañ maa xaar te boobu léegi mënuñu maa gis mais xam nga rek loolu mooy. maanaam pour samp dëj bu Siteu fii maanaam ay kilifa yoo xam nii dëj bu Siteu fii daal. ah bon bëgguñu ma génn wala maanaam si si turu bu Siteu ñuy maanaam maanaam maanaam ñuy sow biisee bu Siteu man kenn du ma sow biisee ku dugg sama sama garde naan nag mooy sow biisee waaye da ngaa xamul waaye. xam rek. Mm. diaspora bi ñëpp nga xaar. waay maanaam jeunesse bi rek ñoo gën a yàqamti dugg bu Siteu Europe. fan yee am na kilifa moo fi fan yee invité woon nañ ma fi fii télé. Mm. am kilifa bu génn ne ne ne ne ma indi ko sama passeport. Mm. waaw am si benn label bu mu bokk bugguma sax di tudd label boobu. ndaka da yëpp bëgg a tas yaakaaru Bou Siteu moo tax sama passeport jëli ji naa ko ci kilifa boobu na ko Sénégalais yëpp dégg. parce que maanaam nga waxante xale. Mm. tas yaakaaru Bou Siteu nga yaakaar ne ma dinaa toog fii nii ñaata mois nga téye sama passeport. Mm. moo tax da moo tax damay bëgg mu leer Sénégalais yëpp. Mm. sama passeport nangu naa sama passeport. nangu nga ko ci kilifa toog nag xaar yàlla. Mm-hmm. waaw passeport baa ngi nii. Mm-hmm. waaw si mel ne Matar Diop suba teel. Mm-hmm. maanaam tagg nit tey xalab ko man du ma ñooñu. mais papa dama la xaar ba sonn te dafa yàgg. waaw te sama morom yëpp ak may raw te dama war a dugg dox ci suufu New York bi nangu naa sama passeport si moo tax. non mais mais est-ce que teelul tamit est-ce que mënoo ko woon a kii tamit. bul est-ce que teel la 7 mois. sept nga ne Bou si télé adduna bi ñëpp di la dégg te Matar Diop suba teel kilifa la. maanaam gis nga am na yenn yoo xam dafa war a dee Sénégal. ay kilifa yoo xam te ne di wax loo xam te ne lépp lu damaa gëm lépp nit lépp lu mu wax def ko. Mm-hmm. te Matar Diop suba teel da ngaa tas sama yaakaar. Mm-hmm. waaw dafa tas sama yaakaar. Mm, mm. moo tax moo tax way bëgg nag mu leer. ndax ñëpp ngi naa buubu si te Matar Diop sa passeport ba léegi nangu naa sama passeport. d'accord mais mais bu bu ban problème nga am. jël passeport bi nag du tax moo taxaw. di di la wax te parce que sama kilifa nga. Mm. mais damaa sonn si xaar bi maanaam jeunesse bi dañoo sonn si sama xaar. 7 mois nga waxoon balaa 2 mois di nga yóbbu 7 mois si tey. Hmm. waaw mais mais mais bu bu sa passeport nag c' est pas la première fois nga koy jël de bu ban problème est ce que tamit vraiment tamit jotul sa passeport nga jox ko Malien yi tamit. parce que bu sa ah, passeport Malien yi ñu ñaanal la ci maanaam ay ku ma waxati buuse da bii mooy trois fois ba may ba may guy gi pompa à gaz bi problème bii la ma nangu sama passeport nangu wala samay sept cent mille ngeen bëgg ma man du ma ñooñu de. et nga ñëw man kenn du xaar loo damaa nekk ci yoon ku bu dee loxo yi wóor ngeen. jaarale leen ma si loxo yu wóor ma dem sama yoon. mais ay loxo yu salta yoo xam ne ñëw di laxu sama bës pour duggati sama bës di laxu sama bës dafay jabartarement opposé. Mm. waaw. Mm. mais fi nii nag bu wax dëgg yàlla tamit est que jotul vraiment tamit ñu def coalition wax dëgg yàlla tamit ki nga xam ne. mais gars yi yow mu tukki quoi. ah bon lii bu lii xam nga ne Waly du def lii waaye Waly Seck lépp lu mu diggee def ko bu doon Waly Seck amal la sama passeport. Mm. wallaahi xel bu dal laa ci am. c'est clair mais xoolal tas yaakaar bi ñu tas sama yaakaar man ma nekk fii nit di ma fi xaarloo ñaata at ma nekk ko ci lamb yàgg souffrir tukki sama mën a yëpp di tukki di dem di ñëw. Mhm. ñëpp di ma njëkk a voyage yi. ay yow mais est jotul kon nga dem ci loxoy Wally Seck kon bu tamit fi mu toll nii. dégg ma la man maa ngi fépp man maa ngi fépp. mais Kilico lépp loo wax def ko. jël jël nga sa passeport tamit bu c'est la troisième fois nga koy jox ay nit di yaakaar ci ñoom tukki ñu jël ko bu mais mais est-ce tamit cette nga yàkkamti parce que Matar mu ngi waaj Zénith teg yu demee rek dem récupérer sa passeport bu non maanaam xaar bi moo yàgg man man Matar Diop su wootee ba muy woote si télé bi est-ce que dama koo neexal est-ce que dama koo neexal mu woote si télé bi en direct DJ Yves. Mm-hmm. DTV guddi gi ñëpp di la déglu mais man est-ce que ba mu wootee dafa waxoon waxu Zénith. waxu fa waxu zénit. zénit waaw. <laughs> da da da day na indi booy na indi passeport. Mhm. Europe laa koy njëkk a yóbbu. buñ jógee Europe bu ñëwee mooy yóbbu ko Amérique mais 7 mois ci boobu léegi. waaw dama nekk man naa fi nekk tul nit du ma xaarloo. mais passeport bi jot na dem ci ambassade yi jot nga am. raadu waaye musul buuse dama doon xalaat ni sax ginax yi mbaa amuñu fuñ coppati si passeport. xaaral xoolaat. dafa sax hmm. passeport boo xam dañu ko jël teg ko benn côté rek. Hmm. xam nga wóorul. te damay bañ ginax yi cox sama passeport lekk ko. Mhm. moo tax ma gënoon nangu sama passeport ndax dafa yàgg. passeport boo xam ne dañu ko teg benn côté rek. Mhm. ma rek très mais mais vraiment c'est dur c'est bu ñu ngi lay masawu di la wax rek yoonu ndaw du gaaw peut-être que looloo tax aussi affaire yi mënagul sotti ba léegi on vous encourage quand même vraiment ndaw du gaaw peut-être looloo tax ba léegi passeport gi mënagul am visa. non man déglu man bu ma fi kenn waxati yoonu ndaw du gaaw te parce que ñaata at yoonu ndaw du gaaw man nekkatuma si yooyu de ay buusite muñal yoonu. du ma ndawu kenn maanaam yoonu ndaw jot na du may duma ndaw de hmm. yoonu ndaw moo jot bu ma kenn waxati ay yoonu ndaw du gaaw waaw maanaam yoonu ndaw boo du gaaw boo xam nii sama morom yëpp di ma raw di ñii di ay sama morom yi xam te ay centaine de millions lañu yor ma xam leen bu baax ñu tabax ay R plus 3 ñoom ñoo yem de kon ananda yoonu ndaw du gaaw yoonu ndaw du boo du boo deewee nag ñu ne ñu ne lan ñu ne non da doon xaar yoonu ndaw du gaaw bu ma kenn waxati yoonu ndaw dafa jot dama dafa man maanaam dama dama war a yor ay centaine de millions. Mm. war a yor ay minti milliardaire mm. maanaam xam ma rek man sama bët sax teguwoo ko si ay millions maanaam dafa jot man xam nga lu may reyante nii pour bëgg a tekki bëgg a gaaw a am. Mm. maanaam dafa am ay junniy doomu aadama yu topp suma ginnaaw ay boo yoo xam te ni ndekki sax mënu luñ ko seen bopp. Mm-hmm. ñoo xam te samay morom yoo xam dañuy liwe. te amuñu sax luñ foyee ay gëy ay sama booy ay jàmbaar rek lañ ñi yor ay soxna mais dafa jot Bou Siteu man man dama dama war a gaaw am tabax ay kër. Mhm. man maa ngi nii teg ñaata terrain yoo xamante ne birig sax tegu fa ñaata terrain biti birig sax amu fa. Mhm. kon dafa jot man ma am fondé famille maanaam tabax samay terrain. Mhm. dëkkal fa nit dëkkal fa sama ay nit. ñoo xam te nii xam naa lu ñuy dund bu baax. samay nit yoo xam te nii maanaam. waaw maanaam wax maanaam wax sax baaxul. c'est clair. Mm. waaw na ma gars yi ñaanal rek. mais mais bu est-ce que jotul tamit jamono ji nga nga nga dem ci loxo yu mel ni loxoy Waly Seck tamit bu comme loxoy Waly Seck jotul nga dem fa. non luy loxoy Waly Seck jotoo nga dem fa. Mm. man ñëpp xam sama diggante man ak man ak man ak Mor Talla Fall borom Sandaga. waaw Mor Talla Fall borom ñëpp a xam diggante moog Waly Seck. Mm-hmm. man ragaluma fu ma jëm de. mais affaire du ay cadre kii sax. Mhm. dëgg la bu Siteu mu ngi si côté showbiz. Mhm. mais man ñëpp laa fi nekkal. sii di jëw doomu Géejawaay la di Diop doomu Géejawaay la. Mhm. man ñëpp laay demal mais Wally Seck dafa nekk nit koo xam ne nit ku baax la. ku si mel ni Ndiaga Euro fan yee recevoir na ma. non est fois Ndiaga suma papa su ma lépp. Mm. nekk ku baax. Mm-hmm. xam nga ma ñëw fekk fa gars yu baax ku si mel ne ay ñoom Ndongo Euro. Ndongo Ndiaye waay ay ñoom Ndongo Ndiaye. Mm-hmm. Ndongo Euro ñoo mm-hmm. ñëpp géejawaay dëkk. c'est rek. waaw di nuyu Ndiaga Euro suma papa su lépp. di nuyu tamit ku si mel ne Tafanaar suma papa. père Tafanaar waay fa laa ko fekkoon. ñu ngi koy nuyu bu baax waaw Ndiaga Euro nekk nit ku baax. waaw ñoo ñëpp ay nit ñu baax lañ. capitaine man man képp ku bëgg sentir fa Bou Siteu mm. man pare naa pour ñëw ànd ak yow. mais est que tey doo dem grand théâtre wala suba yóbbul waale tamit passeport bi toog jotul. non maanaam. gis nga sama passeport bi parce que ko passeport bi nga jox ko moom wallaahi dootuma ko joxati nit. dëgg la mm. Wally Seck ku baax la xam naa ne bu ma ko yóbbu woon vite fait mu yóbbu ma mais maanaam gis nga am na yenn yoo xam sax day dem ba ragal loola kan ngay wóoloon kan ngay wóolooti di ko jël sa passeport di ko ko jox. Mm. bu Siteu moom la seen bés di am ak jotaay mais nag mënul ñàkk quand même le 31 bi nga xamee ni Sénégal yi yëpp a koy wàcc Ndiaga Euro di sa xarit wax nga ko ñu bari ci faramarin yi nekk sa wëllëre kon yaakaar naa ni ki suba yaa ngi file ci 31 décembre baag Wally Seck waaw 31 décembre moom mais nag est-ce xam nga benn benn message laay interpellé hmm. di ko interpellé waa police waa sapeur hmm. maanaam gis nga la 31 décembre bi maanaam nañ fa indi ay sapeur yu bëri nag dafa parce damaa xam ne Wally sekk dina def kirim. Hmm. dooma laaj kirimu lan. kirimu lan lay maanaam guddi li waal sekk di woy est-ce que xam nga ne Wally Seck dina rey dina musa dina musa rey nit si biir soirée maanaam kon hmm. dafa jot. ñuy interpellé sappoor yi na ñëw. Hmm, force de l'ordre ñëw la 31 maanaam waal Seck fépp fu muy dóor di waa sappoor dañ fa war fees ndax mu ngi mu ngi Wally Seck dina rey lu nit foofu. dina woy ba rey nit. dina maanaam Wally Seck guddi li muy woy. sapo rek mu ñëw war a ñëw di couvrir bis bi di couvrir bisu Waly Seck mhm. ndax Waly Seck guddi yi way li Waly sax xam nga ne Waly Seck ba léegi wayagul Waly Seck ba léegi wayagul te dina mus a nit si biir si uh, fu muy dooree five mhm. mhm. walla ay côté fan vog dina mus a rey nit vog ndax xeetu way yi Waly Seck di way Marie mooy sa biige mooy sa biige maat. Mhm. xam nga mhm. di ñaanal papa Thion yal na ko yàlla xaare si àjjana fi di ñaanal muumi dani. muumi dani a nit ñam. Mhm. a may nit ñam. moo génn àdduna. très bien yàlla ko yàlla xaare si àjjana fi yëpp amateurs yi ñu ngi xaar bis bu am solo ci làmb muy diggante Modou Lo ak Boy Niang bu ban lecture ngay def ci komba boobu. waaw combat woo lu ma siy kii rek muy maanaam sama niveau léegi moo tollatul sax di nekk fii sax naan maa ngi maa ngi analyser maanaam foofu ku daan nañ ma ko ku ku daanoo nañ ma ko àll. non bu la wax ni ay tapet lañ mu la tapet nga booy ñaa tapet nga ku daanu ku daanu nag laa wax. te parce que ki may bëreel la. Hmm. dafaa gëy dëë laay bëreel ku bëreel Ama Baldé bërëg bërëg ndaanaan yëpp ngi dégg ci làmb ji moom laa war a bëreel. Mhm. kon ku daanu foofu soxla naa la. mais est-ce que doo doo lijjanti Tafa doo génn ci tafaa ba pare kon door a door xool ku daanu ci ñoom. noo Tafa Gueye moom benn voyage laa koy def. Hmm. Tafa Gueye de benn voyage laa koy def. jeunesse bi sax xam nañ ni man du ma moroomu Tafa Gueye 2. mais gis nga ni mu def Laurent Esca. yaakaar naa fàtte woo ko aussi. mais lan la ko def mais yow bu Siteu ngay tëkkale ak Laurent Ndiago. Laurent Ndiago laaluñu ko mu daanu. mais bu daan la tamit. daan na ma. mais ci king boxing bi nu ma ko def. daf ma daan ci làmb ji ma daan ko ci king boxing bi. kon kam moo ñu boole. Tapha Gueye 2 moo ñu boole. Tapha Gueye 2 moo ko daan. man maa mujj si Laurent Ndiago Tapha Gueye ñëw daan ko. xam kon combat bi ku daanu ci ñaari mbër yi soxla nga ko. ku daanu soxla naa la Modou Lo Boy Niang ku ci daanu nag laa la soxla naa la. Hmm. tombeek ma daanaa la tamit Tapha Gueye 2 gën a nekk niveau bi gën a aju. très bien moo rek alors ah. bu Siteu moom la seen bés doon am ak jotaay frère ñu ngi doon am mbégte si jotaay bi di la gërëmaat ci disponibilité bi waaw di ah. kontaan si yow bu baax merci beaucoup di nuyu tamit ñi nga xam ne nii xam nga mm-hmm. bëgg nañ bu pour para pour bu Siteu niveau gën a changé man guddi yi kuy changé sama niveau rek laay topp toppatuma kenn bu baax mm-hmm. ay autorités yoo xam ne maanaam dañ may jàppale waaw ku ci mel ni jéeri mm-hmm. jéeri xaritu Ba Ndiaye la jéeri maa ngi koy sant bu baax a baax a baax borom Dubaay. jéer yi nekk nit ku baax. Mhm. nekk koo xam ne maanaam kuy suivre Bou Siteu la kuy enjoy Bou Siteu la. waaw maanaam man kilifa yi dañ may suivre di ma mhm. bëggee. Mhm. xam nga ku si mel ni jéeri maa koy sant bu baax di nuyu Baye Ndiaye. waaw di ko wax ni gis nañ lépp daal jéeri yàlla na ko yàlla dafa ba di bëgg di bëggee tamit lagasi. waaw lagasi maa ngi koy sant bu baax lagasi. lagasi waaw lagasi waaw. bu ne ndeysaan nekk nekk ku baax daal. waaw lagasi maa ngi lay sant bu baax. grand frère boo xam ne daf may conseil ci àdduna xam nga mm, mm, mm. waaw di ma conseil ci lu bëri daal ci àdduna moom lagasi ku si mel ne lagasi kon xam nga waaw ku baax a ngi noonu ndeysaan ñoom ñëpp maanaam pare nañ pour bu Siteu ni fu mu gën a changé incha allah waaw ñoom ñoom ni ñuy waxtaan ak man la damay xam ne ñii yéene maa ngi koy sant bu baax quoi di ko ah. jox wàccu waayam di nuyu xam nga di nuyu képp kuy dooleel Bou Siteu rek. waaw maa lay sant bu baax di bëggee tamit ku si mel ne Cheikh Tidiane. Cheikh maa ngi koy sant bu baax maa ngi <laughs> maanaam Bou Siteu ñu koy jàppale ku si mel ne Mamadou Lamine Mayga Mamadou Lamine Mayga suma mhm. koy sant bu baax di nuyu Ablaye Diouf. waaw ñoom ñëpp maa ngi lay sant di nuyu tamit sama sama doomu ndey. Mhm. waaw tey nag dañoo am dese. Mhm. dañoo am dese boo xam te ni Amadou mii ki ma koy xam na bu baax ba ngay der waaw mu ngay der maa ngi koy jaale géeja waaye di ko jaale waa Baye Laay koo xam ne su ma nit la woon maanaam mu ngay der waaw moom yal na ko yàlla xaare àjjana seen daw si daal yal na ko yàlla yërëm di ko jaale waa Baye Laay bi ñëpp nag di ko jaale maanaam kooku mm. perte la si biir géeja waay waaw si nante yi merci beaucoup maanaam kooku perte la dafa parce que jàmbaar la woon quoi mu ngay nekk suma mag suma lépp